asalaamaaleykum mbokk yi bàyyi xel seen site bii di wasaare société xibaar bu doy waar lañu leen indil mu xewewu fële ca fi nga xamante ni moo di Tiwaawan Pël benn ndaw bu wuyoo ci turu Pape nag lañu daal di faat bakkanam gannaaw ba waa Tiwaawan Pël yeewoo yeewoo ak sëngéem ak tiitaange ak njaqare lañu daal di yeewoo ginnaaw ba ñu sukkandikoo ci yaayu ki nga xamante ni moo di Pape mbay lan moo tax mu ñu faat ko nee na dafa amoon ay xaritam yoo xamante ni dañu sol ay jiin yu rafet ñu daal daal mu daal di leen di laaj ne leen fan ngeen jëlee seen jiin yi ndax kat jiin yi dafa rafet ci lañ ko tegtal waa jooju nga xamante ni moo ko faat ko waa ji de moom moo koy jaay mu nga fale ca Kër Masaar ci la pap daal di ñaan ki nga xamante ni moo di papaam xaalis pour jënd tube yooyu nga xamante ne nii moom la xaritam yi sol gannaaw ba mu demee nag ci ki nga xam ne moo di waa ji ci la ko jox li nga xamante ni moo di ñaari junne ak ñeenti téeméer daal di ko ne man de tubéy laa bëgg ak li nga xamante ni moo di lakos ci la ko waa ne fi mu nekk nii de euh, tubéy yi jeex na waaye dangay bàyyi boo ñëwaatee dinaa la bàyyil fii sa tubéy ak sa su incha allah ci la pap daal di ñibbi këram euh, toog ba ay fan gisul waa ji ba mu demee place am ñu ne ko ah waa ji de euh, tey ñëwul waaye tuba dina dem fa li nga xamante ni moo di Tiwaawan Pël ci marché bi foofu lay nekk gannaaw ba pap demee waxtaan ak papaam ne ko kat ki ma war a jaay tubéy yi tey ñëwul waaye nee nañu suba dina ñëw fi nga xam ne moo di si Tiwaawan Pël papa ji ne ko kon xaar waa jooju ba mu ñëw comme de la ne suba lay ñëw Tivaouane Peulh ngir mu jox la li nga xamante ni mooy say tubéy ci la pap daal di toog ba jour boobu mu daal di dem fekk waa ji fi muy jaayee sa Tivaouane Peulh daal di koy laaj ay tubéyam ci la ko waa ji jaani ginnaaw ba ni sukkandikoo ci li nga xam ne loolu la yaayu pap daal di wax ba pap ñibbisee si kër gi daal di koy wax yaay ji yaay ji ne ko waa baax na après ci la ko waa ji daal di woowaat ne ko dama bëgg nga ñëw daldi dem këram ba mu demee këram nag mu né ko dangay ñëw ñu dem fi nga xamante ne nii fi laa denc euh, xaalis bi ndax xaalis bi nekkul suñu kër ci la pap daal di ànd ak moom ba ci école ya mu ne de ko euh, pap yow xaalis bi ma la yore tax na foo tollu di ma yuuxu ak di ma jànni ak di ma laaj sa xaalis gannaaw ba ñu sukkandikoo ci euh, yaay ji li mu wax nee na pap daal di koy tontu ne ko xuloo indiwu ma fi waxantuma laa nag xeex dama soxla sama xaalis wala nga jox ma sama ay tubéy kii la ko waa ji daal di eh, jam eh, paaka ci ginnaaw ñii ñu ngi naan paaka la ñu ñu ngi naan jaasi la ndax kat loolu yëpp kàddu yaay ji moom moo ko génnee ci gémmiñam boole ko nag ak ay jooyu mettee métti métti te naan eh, yàq na yàq na sama àdduna reyal na ma ku ma yërëm ku ma bëgg ku ma suturaal aussi koo xamante nii da doon toog ba naan yaay dinaa la teral ndax kat dangaa sonn ci kër gi ki nga xamante ne ni nag moo rey papa moomu mu ngi ci loxo yi nga xamante ni moo der yi Pape moomu nag ay atam mu ngi tolloon ci fukki at ak juróom-benn maanaam 16 ans la amoon ñu daal di koy faat ñun waa wasaare nag dinañ leen toppal li nga xamante ni moo di information bi lu ci jot am rek dinañ leen ko jukkil ànd ci ak système benn séeréer bu naayis ak wasaare société jëre ngeen jëf.